Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal gën gën a yàggal gëna a doole ak wéram ñu toog ak commission bi nga xam ne Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso imam moo ko jiite waaye feggoo ak Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kàddu commission bi feggoo ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji feggoo itam ak mboolem presse bi ci teewaayu Serigne Jili ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu fas yéene ànd ak yéen ginnaaw boo xam ne séentu nañ weer wi ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent suñuy représentant yi nga xam ne ñoo nekk ci këri Serigne Touba yi te Serigne Modou Mbacké si eh, di leen saytu fenn fu ci nekk ñu am fa ndaw waaye Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdoul Khoudous di dox suñu diggante ak waa Tiwaawan eh, sëriñ Imam Ndiaye nekk ca RTS moom it dox suñu diggante ak commission bu Dakar bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk danañ jokkoo ak yow soog a delloowaat kàddu gi ci kër Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ndigal lum ñu jox ñu yëkkati ndigal loolu ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko nag ginnaaw commission bi seenug saytu ba noppi mi ngi ci kaddu sëriñ Abdou Diop imam dañ koy maase déglu mu leeral ñi nga xam ne moo jóge ci kër sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko sëriñ Fallou Galassi la waxee rek mooy nin ko baaxoo def mooy sëñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne dana na yebal ci jumaa ji ñu yéene fa ne nañ seetu weer bi teg lu xam nga ñëw yëg bi buñ ko defee ba noppi ne danay génn jàkkaarloo sow di séentu weer wi nan nin ko war a séentoo ak di jokkoo gox yi ak représentant yi ba ba ba mu guddi bu guddee ba nga xam ne nag séentu weer weesu na nu door a jokkoo kër sëñ ba noonu lañ def tey nag bi ñu jokkoo kër sëñ bi ba wax ko ni liñ gisit lam nu tontu mooy yéen ñi ko ci koy toppatoo rek Eh, am ngeen ndigal ci nu ngeen ci gis ngeen ngeen gi ko léegi nag kon ginnaaw léegi sentu weer wéy na te te waxtu yi jot kon ñu xam ne weer yu feeñut ñu xam ne suba day moom day day li weer wi suba ci alarba alarba ji waaw mooy fan weereelu fan bi alxames mooy benn fan bi kon ñu xam ne màggal gi di di biir lay doon waaw insha allah ñu xam ne daal yu feeñut ci ndigalu sëriñ bi daal xam ne ne weeru feeñut dañuy mottali fan weeri fan suba ci àllarba ji alxames mooy benn fanu màggal euh, weeru màggal gi weer benn fanu safar na ko ñëpp xam ñu ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér ci dara ji sëriñ Tuubaa ba li mu yéene lépp mu def ko dana ànd koog moom ci ci ci wér ci dara ji sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala